lu waral ndaje tey bi ndaje tey mii dañu am bureau maire boo xam dañ ko samp muy mouvement élèves étudiants républicains département de Thiès ndaje mi nag première réunion bi mi fii la waroon na amee ci Thiénaba comme fii la coordonnateur mouvement bi def ah bi ñëwee dem nañ gis maire bi mu dalal ñu sant ñu gërëm ñu parce que nañu nag moom képp koo xam ne ni jóg nga pour jàppale président de la république képp koo xam ne ni jóg nga pour fësal réalisation du président de la république foo ko woo mu la lu mu mën la ko ci jàppale ci ak ak moyen ak ko ci taxawaay bi xam ne taxaw na ko ci ah bi ñu fi jógee aussi dem nañ seeti xalif général ci Thiénaba donc moom it aussi bi ñu demee aussi ñaan nañ ko mu ñaanal mouvement bi ñaan nañ ko mu ñaanal président de la république ñaanal réew mi loolu aussi yaakaar naa ne xale bi rappelé na ay ay ay ay ay relation ak président de la république wax na ne moom mi ngi jàppale président de la république te loolu aussi du ci du ci jóg euh, mu ngi ñaan nag président mu gën a jox ba gëdd te je pense que président de la république ci loolu la nekk li mu ñuy naxaru aussi wax na ne aussi yóbbantale ñu egg ko ko moo di maanaam taxawaay bi nga xam ne RTS taxawal na ko daal ci gàmmu gi loolu daal mu ngi koy naxaru ñaan na daal vraiment loolu aussi ñu corriger ko ba bu ëllëgee RTS mën a taxaw taxawaay bu rafet ci gàmm gi nga xam ne moom la ñu organisé fii ci Thiénaba parce que ñoom amuñu lu dul gàmm gi donc nee na daal directeur général RTS gën ubbeeku parce que nee na dafay bind ay courrier waaye du répondre courrier yooyu loolu aussi ko donc loolu aussi am nañ yaakaar ne bu ko directeur géegee yaakaar naa dina ci génne ay ay ay saafara dafa naa daal loolu daal la ñu wax comme doléance mais daal bu dee diggante ak président nee na daal lépp rafet na lépp jekk na te incha allahu rabbi fàttewu ko te du ko mës a fàtte fu mu ko doon taxawoo démb ak bërki dem noonu la koy gën a taxawoo est ce que ki nga xam ne si mu ne nii ñi ngi nekk ci réew moo xam ne nii dafa bari ay jafe-jafe coow laa ngi jóg problème insécurité jóg foofu tamit xale bi ne nañ dalal suñu xel nañ dalal suñu xel ci affaire insécurité nañ ci dalal suñu fii ci Sénégal xam ne Sénégal jàmm rek moo fi mën a am te jàmm rek a fi am loolu aussi lu ñu rafet lu la ci ci ci ci jataay bi parce que ku mel ni xalif général bu waxee loolu yaakaar naa ne suñu xel mën na dal parce que si ne nii dégg ngeen terrorisme yi problème de sécurité dalal xelam na réew mi dalal seen xel am na Sénégal moom ko jàmm la te jàmm fi am yaakaar naa suñu xel mën na gën a dal ci côté boobu di ko sant bu baax nag euh, di ko gërëm ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ndaw ñi taxawaay bi nga xam ne am na ko aussi ci président de la République ci ñaar yi nga xam ne mu koy ñaal président di ko ñaal mel ni am na ñu koy contesté di dox a waaw man en tant que responsable jeune sama taxawaay mooy fexe ba lépp rafet lépp nekk ñëpp nekk benn bureau bi taxaw na euh, ñi ngi commencé def seen liggéey donc yaakaar naa ne ñooñu nga xam ne d'accorduñ ci dama leen di woo rek ñu ñëw dugg ci biir ànd ak ñoom liggéey parce que euh, yaakaar naa ne mouvement élève ak étudiant mouvement jeune moo demee noonu parce que ndaw moom bu la yàlla mayee doole may la kàttan da nga yaakaar ne lépp doole la moo tax ba dama leen di ñaan rek ñoom ñu ñëw ànd ak ñoom bokk ndey bokk bàyyi bokku liggéey bi parce que xam na ñoom ñëpp président nañuy liggéeyal ñoom ñëpp dëkk bi nañuy nañuy nañuy nañuy liggéeyal am naa yaakaar ne loolu nañ ci dox nañ ci wax ba ñoom ñëpp vraiment ñu ànd liggéey parce que problème yi du problème sax yu garaaw donc problème jeune la rek xam nga loolu moom dañ koy comprendre mais am naa yaakaar ne dinañ ñëw ñu bokk ndey bokk bàyyi ànd liggéey en tout cas mouvement bi taxaw na commencé nañuy liggéey ñu ngi commencé fii di Thiénaba semaine weekend prochain aussi am na feneen fu ñu war a dem bëgg a tas li nga xam ne moom la président def ci réew mi bëgg a jàppale ci président ci inscription yi dañoo bëgg fi mu ne nii commune bu nekk au minimum mu am 1000 inscrits au niveau des 15 communes loolu mooy objectif bi nga xam ne tey fixé nañ ko mouvement bi commune bi ne au moins 1000 inscrits dans chaque commune au minimum te loolu yaa jeunes yi rek ñoo ko war a def sans compter li nga xam ne ñeneen ñi moom la yi ñoom bëgg nañ chaque commune au moins 1000 inscrits yoo xam ne nii mooy nekk participation jeunes yi au niveau des inscriptions électorales loolu nag liggéey la boo xam ne ni dañ ko war a tàmbali dès à présent utal nit ñi ay carte d'identité fexe ba ñu bindu bu élection yi ba liste yi ubbee ba effectivement bu bu bu bu liste yi rek ñoom ñëpp mën a def inscrit ba yëg de ko taali défendre ko te bu élection demee doo wootee yaakaar naa loolu aussi lay des mais nag del défendre président boole ci yor si électeur moo tax bu objectif boobu nga xam ne am nañ ko pour le moment dama ci dama koy rafetlu rek leen ci sant di leen ci gërëm en tout cas ñun ñu ngi leen di accompagner ci bépp action boo xam ne dañ koy def ñun pare nañ pour accompagner leen pour jàpp na leen leneen li ci des nee naa leen man laan man benn responsable benn benn benn poste politique la am muy euh, deuxième secrétaire élu au niveau du conseil départemental loolu mooy sama jàpp naa ne tey à partir du mois prochain à partir d'aujourd'hui salaire booba nga xam ne dama koy am au niveau du conseil départemental en tant que deuxième secrétaire élu dama koy xaaj ci digg bi jox leen benn bi ñoom li ci des nag ma dese ko et toutes les indemnités yi nga xam ne dama ko les déceptions yi ma am donc ça c'est une décision boo xam ne jël naa ko naa leen ko c'est ça sera effective à partir du mois prochain mon salaire au niveau du conseil départemental sera à donc donc une partie sera versée au mouvement des et toutes les indemnités de session yoo xam ne dama koy am foofu dama leen koy jox sans participation pour jàppale leen ko bariwul nag mais du ci yem décidé naa aussi wutal leen benn siège au niveau de l'université wutal leen un ordinateur une imprimante jàppale leen ko ñu mën a liggéey ci yenn bopp euh, au niveau de de l'université sans compter aussi euh, journée don ticket yi nga xam ne ñuy def prévoir naa aussi may leen 1000 tickets yoo xam ne dañ koy def don ticket yoo yi nga xam ne décisions yi daal la xam ne man pour le moment jël naa ko nekk nag à leur disposition lépp loo xam ne ni daal wax nañ ma ko comme doléance dama mën cee jàpp incha allah rabbi dinaa ci jàpp